su ma ko waxee dana ko mën a xam ndax ki nga xam ne mooy sangu Serigne Moussa Fati day ab sangam la waaye kay ab sangam mooy moo mooy sama sang ndax danoo bokk-bokk bi ndax li ko waral mooy sama yaay mi nga xam ne mooy soxna Mbène dem topp ci sëñ Mansour dem day bàjjanam kon léegi sëñ Mansour dem moom i moom baayam la kon mooy tax mu nekk sama doomu nijaay sëñ Moustapha Dem moom mi nga xam ne itam tey jii nga xam ne mooy waa waajuram sëñ Moustapha Dem moom i nga xam ne tey jii mooy waa waajuram itam dafa taxawe taxawaayu ni yaay taxawe taxawaayu maam ndax boo demee ci ma wàllu maam Abdoulaye Dem day màggi sëñ soo Dem di màggi sëñ soxna Mbeen Dem te soxna Mbeen Dem moom ma jur kon day day nekk sama nijaay kon day sama doomi nijaay waaye bu taxawee ci wàllu euh, sëñ Moussa Ndiaye soxna Fat Dem moom mu taxawee ca kon day daal di nekkaat sama nijaay moom sëñ Madou dem mii kon ni mu nekkee ni Touba dem ñoom ñi nekkee samay nijaay nekk samay samay sang noonu la mel kon ma leer leeral loolu kii nga xam ne nag tey jii moo nu dajale fii muy sëñ Madou dem kon dama koy tàmbalee ci ki nga xam ne moo sanc tëmb nga xam ne ba mu gàddaayee ba mu gàddaayee Fuuta ak ñoom bokkal te lépp li ko li waral gàddaay ga mooy fu mu mën a jaamoo yàlla ak fu mu mën a jàngale ah, jàng alquran muy sulmaan moom mi nga xam ne ñu koy wax njoba dem njoba dem moomu ku ñuy wax maan maanaam mi ngi tàmbalee ci siira dem siira dem moo jur maam lamin dem ca fuuta maam lamin dem moomu nag dafa bari woon ay doom ndax dafa juróon ku ñuy wax njoba dem muy sulmaan mi jóge tëmb dellu jur ku ñuy wax Souleymane Dem Souleymane Dem mooy maam ñi nga xam ne waa Sokone yi ak waa waa njërim yi mu dellu jur ku ñaan Faxalamin Dem Faxalamin Dem mooy mooy waa ñi tey ak waa xur wi mu dellu mu dellu jur kuñ naan njàngaan dem njàngaan dem mooy waa coxal ñee ñi sant dem ak ñu bari ci ñu ci bokk jigéen ñi mu jur kuñ naan ma jigéen dem amaan na itam kuñ naan soxna Sidi dem am ku ñuy wax itam soxna Xureeja dem ci gàttal rek soxna siidi dem nag soxna Sidi dem moom moo jur Aysa ak saajo Aysa moom moo jur Mambal Aysa Mambal Aysa moo jur Maam Mor Anta Sali muy waajuru Sëriñ Tuuba Sadio mi nga xam ne moom la bokkal saajo mooy moo jur Mambaara muy waa Mambaara Sadio baax muy waa Bofil ñi nga xam ne mooy doomi ndey Maam Mor soxna xuréeja dem ma ca des nga xam ñu mbokk baay soxna xuréeja dem moom moo jur kuñ naan tafsir bunda euh, demba bunna dem tafsir demba bunna waaw si tafsir demba bunna si la jur tafsir demba bunna si nag moo jur maam Ousmane si maam Ousmane moo jur maam Alaji Malick sun maam jooji nga xam ne moo bokk ak ñoom Baye nag mooy Njoba dem Njoba dem moom it moo jóge woon foofu ñëw sanc si tëmb bi mu sañsee itam wax na histoire bi fi mu jaaroon ci euh, Daaru Ñas ba ni fa jógee ñëw tëmb euh, nga xam ne tey mu ñu jox ko kuñ naan soxna Mariama Ñas mu am ca mu am ca kuñ naan séer dem séer dem moomee jur kuñ naan kuñ naan euh, ma dawur dem ma dawur dem jur séer dem ñu koy topp di ko topp ba ba egg ci ma dawur dem moomee nga xam ne daal jur kuñ naan Mamadou Anta Ndiaye dem ma dun Anta Njaay nag maam Baara dem ñoom ñuy cooy ci maam moomu lañ soqi ko ndax ma ma dem dafa jur ma dun Anta Njaay dem jur séer Anta Kumba dem muy mag ak rakk ma dun Anta Njaay dem ngeen déglu li may wax nga xam ne ñoo bokk ma dun Anta Njaay dem moo moo moo mooy mooy maam Baara dem ñoom ak lu bokk ci askan woowu ñu bokk ñu bokk ñu bokk benn waajur séer Anta Kumba dem itam ñu bokk benn bàyyi Sëriñ Anta Kumba Dem moom yi nag Madun Dem ñi ci foofu la soqi ko moom kon ma dikk ci Sëriñ Anta Kumba Dem Sëriñ Anta Kumba Dem moom yi nag moo jur ku ñuy wax maam mutu fa dem mooy doom ju mag mutu fa dem la jur teg ca ah, muudu aminata dem muy rakkam mutu fa dem nee naa leen kon moom moo jur maam abdullahi dem ak maam baraama dem ah, ak ñi mbokkal Mam mam mam mudu amina dem mi nga xam moy rakki mutafa dem mo jur mam abdu awa dem mam abdu awa dem nak mo de ko abdu awa dem la jëk jur am na ndax baraama dem la jëk am tek ci mam abdu awa dem bam ko defé di yalla dogalé mam baraama dem samp kër ñu daal di dem beuti Dakar, jox ko soxna soxna suñu wax soxna falo moo mu yar ko moom maam Abdou maam Abdou Awa dem maam astaghfirullah maam Barama dem daal di cee am ku ñuy wax Fati Barama dem ak Aminta dem Fati Bara Fati Barama dem nag moom moo juróon Baye Somsu Njaay ñoom ak Baye Muudu Njaay ak Alaaji Njaay ak ñi mbokkal ndey léegi Aminta dem moom moo juróon kuñ naan Alima ak ak ñoo ñu la amoon bi mu ko amee na mu gaañu bi mu bi mu nelawee nag soxna sa nga xam ne mooy soxna Fallou bi mu dégg liggéeyee ba am liggéeyee mat ñu ne nañ ko jox rakk ñu jox ko rakk ja muy muy maam Abdou Awa nga xam ne moom la aawaloo maam Abdou Awa nag bi mu ko aawaloo mu daal di cay taawloo mu da maam Moor Dem Moor Dem. la ñu taawloo mooy maami muudu mii moor dem moo jur sëriñ dem bàyyi sëriñ dem mais woon ci daru manaan moor dem la ca am teg ci sëñ Moustapha dem mii nga xam ne tey mooy baay bàyyi alaji madun dem mii nga xam ne ñoo bokk ndey ak bàyyi mu daal di cay tegaat muy ñaari góor yooyu mu daal di cay tegaat ku ñu naan soxna basin dem muy ab jigéenam dellu cay tegaat ku ñuy wax soxna màgg màggat dem soxna basin dem moo jur abdou basin ca bayti Dakar ak ñi mbokkal dama koy tënk rek soxna màggat dem moo ca topp soxna màggat dem moom moo jur soxna busa njàmme mais ca bayti Dakar ak soxna ami Diop mi nga xam ne moom la sama waajur yor yoroon léegi mu tegaat ca ku ñuy wax soxna Marema dem soxna Marema dem nag moo jur kuñ naan soxna maam Awa Njaay muy ndeyi kosa kosa kosa Diop tegaat ca soxna Nogay Njaay muy suñu bàjjan soxna Nogay Njaay defe naa doomam mu ngi fii muy ah, muy muy baliloo ñëw na fit ñëw na ci jataay bi waaw baliloo waaw kon kon kon ñooñu ñoo bokk ndey nga xam ne ñoo ñee dañoo bokk ndey te ñu bàyyi muy ñaar ñee ma ñu ko wax ñooñu ñooy njobootuk maam Moustapha Dem mi nga xam ne tey boroom kër gi nu nekk tey ñooñu ñooy ay ay bàjjanam waaye nag maam Abdou Awa nag bi mu ko defee mu daal di amaat soxna suñuy wax soxna Fat Jeng soxna Fat Jeng nag moom ma nga jóge woon jigéen nga xam ne ñu koy wax muy rakki sëñ Mamour Xari Jeng soxna Fat Jeng moom moom la moom mooy li ñuy wax ñaareel moom la ñaareele muy ba mu fa ñëwee mu am fa ku ñuy wax sëriñ Mat Dem nga xam ne Abdou Awa ko jur amaat fa ku ñuy wax euh, ba mu amee sëriñ Mat Mat Dem amaat am fa sëñ Ibra dem sëñ Ibra dem sax moom mag sëñ Ibra dem la am ak sëñ mat dem muy ñaari doom yooyu nga xam ne moom la am ci kër maam Abdou Awa waaye soxna Fat Jang nag am na feneen fu mu demaat daan ci dikkaat bi mu fa amee ñaari doom yooyu nag mu daal di maam Abdou Awa daal di demaat jëlaat soxna suñuy wax soxna Anta Penda soxna Anta Penda Anta Penda Cissé soxna Anta Penda Cissé nag. moo moo moom la ñetteele moo jur maam fa maam fat dem moom la moom mooy mooy mooy ab taaw maam fat dem moo jur moo moo jur sama sama waajur sëñ Moussa Ndiaye nga xam ne Abdou Awa ka nga xam ne moo sëñ Moustapha dem mi bokk ak mi jur alaji mari mi ñoo bokk ñoo bokk baay dellu fa amaat soxna astu dem soxna astu dem topp ca soxna astu dem moo jur moo jur kuñ naan bàyyi seexloo muy ba tey bàyyi bàyyi bàyyi loo boobu tegaat ca ku ñuy wax sëñ Ibra Lo sëñ Ibra Lo moo jur Tuubaa Lo mii waaw léegi moom da cee maamu dañ cee maamu ñaari yoon moo tax moom mu tegaat ca nag ci ay góor alaaji Ibra alaaji Ibrahima dem muy jaaja dem alaaji jaaja dem xamoon ngeen ko yéen ñëpp moom bàyyiwul doom waaw mu tegaat ca ku ñu naan maam Siir dem seer dem moo juróon ku ñaan mat dem ak ak ak Abdou dem ñooñu dañoo faatu moo nekkoon tëmb ñu ko wax seer anta mu tagaat ci ku ñaan maam Maxtaar dem maa Maxtaar dem mooy bàyyi ah, kosa dem mi ak Touba dem ñoom ñi ah, ak ñi mbokkal kon ñooñu ba ci njobootuk maam Abdou Awal kon ñooñu yaakaar naa su ma juumut mooy njoboot gi nga xam ne mu nga bokk ak maam dem baay ak ñi bokk ak Moustapha am dem nday njëfena tudd na ñëpp léegi nag maam Abdou maam Abdou Awa nag euh, soxna soo si nga xam ne mooy soxna Fat Jang bi mu càmmee ñaar doom yooyu dafaa jóge waat nag ñu jox ko maam Matar dem ku ñu wax maam Matar dem maam Matar dem nag am ca ca ca ca ca soxna soo si soxna Fat Jang am ca soxna jee dem mooy nday mëg yi mëg yi gii amaat ca euh, euh, nijaay ah, nijaay eh, nijaay Daawuda Dem Daawuda Dem moo ca topp teg ca eh, nijaay Mbay Dem nijaay Mbay Dem mooy bàyyi alaji mi mi doon nuyoo léegi nii waaw teg ca alaji Tuubaa Dem nga xam ne ñoom ñi ñoom ñii dañoo bokk ak ñee eh, benn ndey te bokkuñu bàyyi kon ñooñu ñooy njobootuk maam Abdou ak ñee nga xam ne dañoo bokk dañoo bokk ndey te bokk ñu bay mu njaboot ak maam Matar dem kon loolu moo bàyyi koo ci maam Muudu Aminata dem mi nga xam ne wax naa leen ne moom maam mutt fa ñoo bokk benn bàyyi kon ma ci maam mutt fa nag ñi nga xam ne ñoom la jur maam mutt fa dem itam mi nga xam ne moom moom am Muudu moom Muudu Aminata ñoo bokk noonu lañ bokke moom it maam Abdoulahi dem la ak maam Barama dem ci góor am na itam ku ñuy wax euh, na Faal Dem ak ku ñuy wax euh, euh, ku ñuy wax ku ñuy wax soxna Faal Dem la am mu mag ak Ndumbe Dem daa am ñaari Ndumbe Dem nag Ndumbe Dem mii nga xam ne muy mook Faa Dem daa am Faa Dem ak Ndumbe Dem muy nga xam ne ñoom ñooy Ndumbe Dem moom moo nekkoon xareñ moo amaan meneen Ndumbe Dem moo xam ne moo nekkoon moo nekkoon Mirina ci ñoo ñëpp ci ay doomam lañ amoon na wax itam Ah, ku ñuy Mahmoud Fa mooy amoon na ku ñuy wax itam ah, ku ñuy wax séer séer Mbacke Jaw dem moo kooko daa bàyyiwul doom kooku itam ci njabootam la bokkoon. Maam Ablaay dem nag moom wax naa li ñuy doom ay doomam mooy ñi ci magoon ñi ci magoon ci góor ñi mooy maam yaay sëñ tëmb nga xam ne mooy magi yaay Mansour dem teg ci sëñ Mansour dem teg ca ku ñuy wax ah, sëñ Mbacke dem moo ca magaatoon teg ca ku ñuy wax Cheikh Mbacke dem. teg ci ku ñuy wax moor dem teg ci ku ñuy wax euh, falu dem amoon na ku ñu keneen ku ñuy wax Moustapha dem moom ci daara maam ci maam sëñ Seexaw Balla loo muritoon ba wàcc moom dafa teel a nelaw jotoon naa denc moom moo nekkoon caaxo muy Moustapha dem ñooñu noo doon ak njabootam mu tegaat ca maam Baraama dem maam Baraama dem itam ak njabootam moom yaay daam dem moo ca mag daam dem moo nekkoon përi teg ci nijaay mu ah, maanaam soxna Faati Mbàkke dem teg moo ca toppaat teg ci nijaay Moustapha dem waaw nijaay Moustapha dem teg ci nijaay Mat dem ci ci ci góor ñi teg ci nijaay Baara dem waaw defe naa tegaat ci Cheikh ah, dem ak nijaay As dem suma ma su ma ak ah, bu ma juumu daal ñooñu ñooñu am na ñeneen nag fa dem soxna fa dem ak soxna nogay dem. ñooñu de bu ma juumul ci kër maam Baraama ñooñu ñooñu la am ci ay ay doom ak awa dem ak awa dem waaw awa dem ak soxna Fall dem waaw awa dem ñooñu kon sëñ Madun ñooñu moom nga gën a ñoom gën a jege lool ci mbokk ndax ndax nee naa la ñaari maam yi ñoo toppante wax naa la ne la wax naa la ne la siir Anta Kumba dem ci boppam muy maam moomu moo jur ñaari ñii moo jur. moo jur moo jur mutt fa moo jur mudd amee na ta dem kon ña ñooñu laal toppal nu dem nag ci ñi ca des muy nga xam ne ba tey maam moom moo leen jur ba tey waxoon naa leen ne ma dawr dem ma dun anta njaay dem nag moom am na ay doom yu baree bari ndax ñu bari daanaka eh, moom daa mel ni moo gën a joboot sax ndax maam ma dun anta njaay dem moom moo jur ku ñu ku ñuy wax maam jobba dem jur ku ñuy wax siir dem waaw jur euh, jur ku ñuy wax galaay dem jur ku ñuy wax gay dem ku ñuy wax antukumba dem euh, jur na ñeneen ñoo xam ne yëpp ma leen jotaay bi waaye euh, njoba dem mi mu moom njoba dem moom moo jur mamadun dem ak mam soxna Fall dem mamadun mooy moo jur alaji baara mi toog maam soxna Fall dem moom moo demoon cambien moo jur ku ñuy wax sëñ Mat Joor Sàmb ak soxna sëñ ah, sëñ Thierno Samb ak soxna Gàdd Samb ak Faati Mbàkke Samb càmbin yooyu yëpp ci tëmb lañ bàyyi ko léegi njobba dem itam amoon na rak rakk ja itam mooy fat dem moo demoon mirina am fa am fa benn doom bu jigéen muy ko anta jee anta jee sillu anta jee sillu moom mi moo dellusiwaat tëmb jur fa Ablaay dem mooy maami Ah, Fatick la mii Fatick la ndax moo jur mooy maami Joor Gay Joor Gay mi nga xam ne moo jur Fatick la Njaay moom xëy na ñëw na ci jotaay bi léegi séer moom ma ca toppaat séer dem moomee jur maam Matar maam Matar dem yi ma doon wax léegi mooy Matar dem Matar dem waxoon naa léegi ne leen moo jur ah, Matar dem moom rek waxoon naa ne ñim jur fii ci Njaay Dawuda ñoom juraat nag moo juraat ku ñuy wax nag Fatima Sarr dem juriñ ki wax sëñ Moussa sëñ Moussa dem ak Siir dem sëñ Moussa dem mi nga doon laajte kooku moom Matar dem mooy moo ko jur ba tey ñooñu ak ku ñaan Assane dem ñooñu ñooñu la bàyyi ko ci ba tey ci Mamadou Anta dem moomu yëmuñu ba tey itam ki nga xam ne mooy moom muy Mamadou dem moom itam am na keneen jeneen rakk joo ne ñu koy wax ñu koy wax daawuta dem nga xam ne moom yàlla dogal na ah, fanam guddul benn doom rek la fi bàyyi muy muy muy yaay Cheikh Dem nga xam ne tey mooy waajur Assane Dem ñoom ñii nga xam ne moom ni Mamadou ñoo bokk ñoo bokk tey muy rakkam moom benn doom boobu rek la fi jotoon bàyyi muy Cheikh Dem